donc xolo euh, xolo donc euh, qu'est-ce qui se passe am na am na aussi beneen arrestation bu ñu bu ñu noté taxawal taxawal kaay kaay kaay kaay garawul kaay ñu noté de l'autre donc euh, xool fii donc euh, ñu ngi toujours euh, fii nga xam ne euh, Guy Marius Sagna ak euh, Karim Xurum Xaq ñu ngi fii ci oto yooyu ñu bloqué noonu ci kanam donc léegi lu ñu constaté mooy takk der yi ñu ngi isolé les journalistes yi nga xam ne nii ñoo nekk di couvrir euh, événement bi ñu ngi leen di jéem a isolé mais ba léegi daal bu ñu jatangee oto bi ba léegi defaguñu defaguñu beneen réaction loolu daal amal quelques arrestations quelques activistes di isolé journalistes yi léegi nag nu ñu nar a ba nga xam ne ni dinañu génne manifestant yu nekk ci beneen oto bi moo leeragul exactement de toute façon ñu ngi isoler les journalistes pour ñu gën a pour ñu gën a reculer mais dinañu xool euh, ban porox ndoll la ñuy mën a awaat ba nga xam ne ni dinañ mën a tromper leur vigilance pap tay dinañ mën a tromper leur vigilance ba xam ne ni dinañ am euh, yenn ci image yi donc ñu jéem alewu ñu melewu ñu melewu à la à un peu pour voir euh, ce qui se passe donc on va essayer de dañoo waaw donc euh, ñu ngi noonu donc euh, oto bu Karim Xurum Xàq nekk jële papa jële jële oto bu Karim Xurum xaq nekk oto bu Karim Xurum xaq nekk daj nañ ko jàpp ko jëlal arrestation guy arrestation Karim Xurum xaq noonu jumel ma sol lu weex li noonu kon euh, Karim Xurum xaq lañu ñu may ko waay s'il vous plaît Karim Xàq la jàpp noonu placel bu baax Karim Xurum Xàq la ñu jàpp noonu donc euh, daj nañu oto bi daal di koy euh, génne mu ngi noonu kon ñu jàpp Karim Xurum Xàq mu ngi noonu kon ñu jàpp di di yóbbu ci oto police bi donc euh, yeneen occupants yi ñoom ñëpp jàpp nañ leen jëral Karim Xurum Xàq mu ngi noonu ñu yóbbu kaay kaay kaay kaay papa kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay papa papa donc euh, mu ngi noonu papa donc gis nga Karim Xurum papa donc euh, Karim Xurum Xaq lañu jàpp noonu donc mu des beneen oto bi beneen oto bi beneen oto bee ngeen di papa beneen oto bee ngeen di seen aussi Karim Xurum Xaq moo ci Xaq bon Guy Marius Sagna moo fa nekk donc euh, beneen oto bi Guy Marius Sagna moo fa nekk ñu xool nan la takk der yi nar a réagir moom i tamit waaw parce que ñoom Karim Xurum Xaq ak ñoom Guy Marius Sagna dañoo nekk seen euh, biir oto dañoo nekk seen biir oto daal di verrouillé daal di daal di verrouillé porte bi. daal di verrouillé bi donc concentré wu oto boobu la Guy Marius Sagna nekk ñu xool nan la ñu nar réagir ak Guy Marius Sagna aussi. donc Karim Xurum Xaq mu ngi ne di résister ba léegi mu ngi noonu di ko dugal ci fourgonnette bi ak yeneen ñi nga xam ne ni moom ñoom la nekkaloon ci biir euh, oto ba donc ubbi nañu fii fii tamit guy mari non du guy kon guy mu ngi ci beneen oto bi donc jàpp nañ ñu nekkoon ci oto boobu jàpp nañ ñu nekkoon ci oto boobu jàpp na ñu nekkoon ci ci oto boobu donc Guy Marius Sagna moo nekk noonu ak Thiaba avancé avancé avancé avancé avancé Guy Marius Sagna moo nekk noonu Guy Marius Sagna moo mettre les mains à l'air noonu ñu koy dugal moom tamit ci fourgonnette bi donc euh, ok chef ok chef ok chef donc euh, mu ngi noonu Guy Marius Sagna mu ngi woon ci biir oto bi moom tamit euh, moom tamit jàpp nañ ko yóbbu. moom tamit eh, jàpp nañ ko yóbbu ak yeneen occupant yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci yeneen oto yi donc oto yi donc kenn nekkatu ci dañoo ñëwoon ba ñu bloqué fii donc euh, nous rappelons manifestation la bi nga xam ne nii ñoo lànk moo sumboon te lu ko taxoon a jóg nee nañu mooy dundu gu gi manifestation bi nag préfet de Dakar da ko interdiroon donc euh, ñetti oto yi ngeen di seen dañoo ñëw ba fii euh, daal di fi bloqué verrouillé porte yi oto yi daal mënuñu woon avancer à la place de la nation ñoom ñu nekk ci biir verrouillé porte yi donc euh, takk der yi def nañ lu ne pour ubbi ko mais finalement ubbi nañ ko ba jàpp ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci ñoo nekkoon ci biir donc situation bi mu ngi noonu donc mën nañ ne c'est une manifestation qui a été finalement étouffée dans le parce que tous les manifestants ont été arrêtés ou sont en train d'être arrêtés donc euh, manifestation bi nga xam ne ni donc nu na cessons de le rappeler nee nañu dund gu cher gi moo ko taxoo na jóg. donc ñu ne tamit bu ñuy ñëw fu marche bi manifestation bi waroon amee donc dañ ko dañ ko verrouiller complètement dañ ko verrouiller complètement ba kenn mënu ci woon am accès donc euh, lépp la ñu la takk der yi cadré woon cadrier woon ba nga xam ne ni daal ngir jaar fa dina day métti loolu donc euh, mën nañu jàpp ne daal manifestant yu ñëwoon en tout cas ñi nga xam ne nii ñoo ko doon jiite muy Guy Marius Sagna muy Karim Xurum Xaq muy ñeneen ñi Pape Abdoulaye Touré kii ni mel ñëpp daal teg nañ leen loxo ñu ngi noonu ci fourgonnette tu police bi donc euh, fas yéene leen yóbbu kon situation bi fii la toll exactement voilà de l'autre côté nag euh,